waaye jalib moom mooy kan moom waaw mais policier moo yow mais xoolal ma xale bi yow ween yi wuy sama ndey maa ngi dee wuy yaay xoolal yow weeni yow o maa ngi dee man Ibou waay mais xale bi sax saf xoolal ginnaaw gi o o wuy sama ndey ginnaaw gi waay kii moom mool waay kii nag la mën def rek ba mu fóon sama ndey xool ko xool tuñi kol tuñi wuy xool tuñi wuy wuy ui ui ui ndey maa ngi dee wuy wuy maa ngi oh. waaye kini nag laa war def rek ba mu fóon ah polisi polisi macam lah Polisi demi biar nak kol na xool ko man rek Wui wui ay kol kol kol kol kol bunyi xool wui kalau uy ini xoolal ween kalau pecel bi wui uy eh, pecel paccal bi pecel bi ay uy wo ah. Halo, waaw Wally Seck ci loo nekk ça va alhamdulilah ça va très bien no konser bi bàyyi la beneen yoon quoi parce que nawet bi moo tax mën nañ tëgg concert mu commencé taw bàyyi la yon yoon nga yo xam nga ñoo far d' accord xoolal bu ma woo ci numéro bi dama woo ci sama numéro tigo bi dégg nga ok na ñoo far yow Wally Seck sen bi ça va yaa Wow, wow, ça va alhamdulilah soxna si ça va très bien lan nga bëggoon. <coughs> sànq dama la dégg ngay wax ak wali Seck dama bëggoon xam nag wali Seck lu ngeen bokk yéen ñaar. ah d' accord Wally Seck dafa yaam bi kooku sama xarit la sama xarit la kooku sama xarit benn bakkan la ndax tay nekkoon caaroy di jaay jën euh, amul dara man produit dal mu dugg ci musique bi jàngal ko way yooyu noonu dégg nga mais wali Seck moom sama grand la allo waaw Chris Brown I have heard spoken here on Sweet Talk But Missy Harold here on Hurricane Style. Maybe for his hair, and Hulk speaks for him to start for Quentin Style. Deal, our hands were raised. Our quite comfort, but I turned spin our icons board, but for Harold. Asan bi yow war ngaa risté Chris Brown nga Wachal, waxal America. Amérique man nag maa ngi tudd Amina waaw policière laa nag fii laay gardé nag yow nag naa de d'accord Chris Brown ah Chris Brown def yang rek ma wali sekrek, wow, rek waaw boo malagan noppee benn maa la gën si ndax da ngaa coofe rofe dore, bere, ya gën ham xam ah bon lo di mana ya? yow rek nice sesekin bi dafa nice sa bi dafa nice Lepa pun nice ya, yow daal dama lay këf yóbbu la septième étoile toppatoo dia di la dia lebat jika nak la dia lebat suf, nag ah soxna si yow Lady di mana ya de est-ce que xam nga woon ba ñëpp yaakaar ne da ngay daanu ma capté la sama ñaari ween ba pare naan la policier affaire bi yow la xolol ci yow la des maa ngi nii lépp loo bëgg rek yàlla na jàmm mais est ce que mën nga ma may benn bisu benn bisu bu kan neex neex neex ma xam ah d' accord bisu rek nga bëgg amul benn problème hmm, ah. waaw affaire yi neex na mais est ce que mën nga ma dolliwaat jàpp ci rek xolol mais am na rek bi xam yow Hmm. ibu Sulario, yow nday roqi nga dégal to la yaa ma topp rek di ma sonal xanaa xam dama occupé bàyyil ba ci kanam mu ñëw kër ga dañ waxtaan mu sonal waaye soof nga trop nag ah lii nga may tontu yow sànq bi nga bi nga génnee ci mbéyga bi romb ma sa batterie téléphone bi ma far ko ne lii de batterie ibu la xam yëbul ko ko booba léegi maa lay wër pour sa batterie téléphone bi mun maa fexe fexe ba gis la di soxna si waxaatal ma dégg kon ça veut dire yor amul bateri, kon ça veut dire amul bateri dam ah déedéet ah, amul bateri de ndax bi ma yoroo ma ci màgg bi la batterie téléphone wadde man xaaram farku li batterie ibu la lu xew jam jaam la yow yaa mën fen dëgg dëgg ya dul kon yow bi amul bateri. en tant que policier main may fen yow yow de jàppal nga ci kaso bi ngay dee yow tey ci kaso bi ngay dee du la may ñax nak wax nag muy wali sek di Chris Brown di la kay anglais na nga ay duuli kessa kessa kessa kese la sa bop bi di melni xerba ta ngor soxna sama def mala dara dama fek may wote sama wote ngi ñëw wax ak man waro ma xass nak sa tunji di melni yeb yow man ngay xas en tant que policier nga war ma jox te respecté ma ci digg dëkk bii nga may xas maa nii di wóor seetaan mbay ci kaso bi ngay dee yow dans la porte plainte contre violation de policier dama ne yaa ma xas ma xas la te puis soo ma porté plainte contre violation de policier ma porté la plainte contre violation de écouteur de téléphone ndax yaa ma déglu ba ma dégluwutoon doo xam ne waa Seck laa doon waxal